Heavy Bass.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 bi ca département bu Kanel moom daal nee ñu ci vérandam la xaro te bi muy xaru nag nee nañu ruban la utiliser loolu nag mu ngi ko def ci waxtu woo xam ne mu ngi waroon a defaral xëdd membre famille gorom li yéema nag nee ñu ndaw si doful jinne jàpp ko te amul woon benn problème ak membre famille bi ah ma doy na war de ci lu ko tax a xaru loolu nag mooy question bi réew mi nag léegi xaru yaa ngi mel ni tulleeg màlli ñoxor njaay rek nga dégg ne diw xaru na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax waa nag li mu def rëy na ndax da doon bëgganteeg benn élève bu jigéen boo xam ne mineur la am 17 ans naka noonu bi mu ko ñaanee ñu lànk ba tëdd ci naaj bi ne duñ ko ko may ci la ko xale bi propose ne ko nañu jaar ca ñàll wa maanaam ëmbal ma kay élève bu jigéen boobu mu ngi wuyoo ci turu AC waa ji def njombeli nag ab sofoor la di wuyoo ci turu MS élève boobu nag neen ñu li ko xamaleeg waa ji mooy naka jekk famille élève bi da seq ay jëflante ak MS mu leen di doxal ay service si noonu le sofoor bi di MS xamanteeg ac élève mineur bi mbëggeel dal di dox ci seen diggante ma ne fu ne lay jógee nag bi mbëggeel doxee seen diggante nag ms sofoor bi ci la dem ñaani xale bi famille bi tëdd ba lank ci naaj bi ne duñ ko ko may teg ko ci ñaari mbir bu njëkk bi mooy dañ ko xale bi mineur la 17 ans la am duñ la ko may ñaareel bi mooy xale bi élève la dafay jàng duñ la ko may ma ñaari mbir yooyu tax ba ms ñu lankal ko may xale bi bi gannaaw loolu nag ndekete ñoom ñaar ñu ngi gise ci suuf ay waay waay mbëggeel daa doy waar de ba mbir mujj cee xew waa ndaw si bi waa defee njombelu rëy loolu nag ci la membre famille bi dal di porter plainte waa ji di ms chauffeur ba fi yoon daan ko juróom benn weeri kaso moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca grande bu ndakaaru romb na doy waar ab waay dal la fa àndandoom xaas ne ko sa bopp bu rëy bi waa ji dal di jël tournevis fekk waaja muy julli mu dal ko koy jam kay mbir mi nag nee ñu nii la demee my jaabi am fukki at ak juróom-ñaar moo doon wax ak aaba di àndandoom naka noonu bi ñuy waxante aaba daal di koy xas ne ko sa bopp bu rëy bi bi loolu amee nag my jaabi dal di guuxal aaba xaar ba aaba dem di julli ji ca grande mosquée my jaabi dal di koy topp ndànk bi julli gi tàmbalee ba aaba jël boppam teg ko ci suuf ci la ko my soldat bi daal di bett jam ko tournevis bi ci ndigg li ay waay ay waay ba ñu mujj ko évacuer ci hôpital principal moo tax mane ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax kii nag ak mbër la nekk ci écurie Lansar ñu koy wooyee am numéro 2 moom dal dafa sàcc saret ak fas bi ñu ko tegee loxo li mu justifié càcc mi mooy covid 19 bee tax mu sàcc est mbër mi jabaram dafa feebar yorul dara dara lu mu ko fajee naka noonu ci la demee sàcc fas ak sareetu jàmbur bi ko yoon tegee loxo nag doon ko déglul tax mu def lu ni mel def ne dafa toog ñaari at bërewul ndax covid 19 bi bi poosam yi demee nag ba dara nekku ci jabar gi feebar looloo tax mu sàcc ay waay ma ko nag du du prétexte waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax kii nag sama mbokku artiste la diw yoo ci turu asal moom police bu Grand Yoff ñoo doon def patrouille ba yam ci moom fekk ko muy mukki yamba bi ñu ko tegee loxo laaj ko loo fi def tax ngay mukki yamba mu ne leen bu mukkiwul yamba du am inspiration ay waay bu mukkiwul yamba du am inspiration ma ne ko bari na ci sama mbokk yi nag waaye suñu hôpital yi li ciy xew jéggi na doy waar ndax ndaw si ni mu génnee àdduna jéggi na dayo de moo tax réew daal bu ñu fonkul priorité yi yii rek mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz